génn Coly Faye numéro guys génn na gaa ngi ah mystique si lama, kian mënu si dindi Ada lah feeling perfect, feeling fekk fii oh combat bi dina doy Ada pas. oh bi combat préparation eh si meeku Baol Eda de forme pa pa pa pa pa pa pa pa 2 si beeku na mu ngi raxas loxo yi am na lu muy jàpp ngi sëlmu mu ngi laal ak na am lu ko jox. qualified amna lu ko jox Ada pas mo si ay mo moom be beekoogul. Lampas, Monte Alpuleram, Sibirgo, Ada Fass beku na Ada Fass beku na tey waa ji waa ji waroon na stade boobu sap sap ah, ana Coly Faye Coly Faye ngi ne la mooy seen am na ay gàllaaj yu koy andil numéro 2 bi moo koy andil ay gàllaaj jógal si wetu Ada Fass jógal boor boobu Coly Faye traite bi tàng Coly Faye traite bi dafa tàng Coly Faye combat bi consigne lañ koy bëree Coly Faye combat bi boo ko bëree xool am lu la naqaree Coly Faye combat bi koy daan ñu ngi si dernière bouteille yi Daniel Boulaye Youssouf Daniel Boulaye ba Ada Fass tëbbeekoowul Ada Fass bu temps bi jeexee rek ñu commencé décompté sa sa Ada da ngaa sangu Ada Fass da ngaa sotteeku say gàllaaj kii menacé na numéro na Ada Fass na ko daf lay rendi ah, ah cey bi yeneen téere ñu koy am na ay yeneen gàllaaj ay combat xale yi léegi ay combat xale yi léegi qualified qualified combat bi tey moo koy gagné combat bi du fukk moo koy gagné am na lu xew fële de am na ku ñu jàpp fële parce que loolu de am na ku ñu jàpp ñu koy yóbbu ñu koy yóbbu coow li bari na fee de yaatal kii bi géew bi ba pare yi tamit li ñuy may si pare yi ñu dugg ci biir géew bi dafa bari dafa bari géew bi day mujj dem ba xajam présentation drapeau jarul lii présentation drapeau yaakaar naa pare bi rek ak ñaari bëri war nañ ko mën a nekk mais lii li dugg si biir géew bi dafa bari dafa bari CNG war nañu jóg si lii parce que lii bokk na si luy yàq làmb bokk na si luy guddeel làmb waaw présentation drapeau jarul ay mille personnes di dugg ci biir géew bi ay fumigène interdire ko yeneen yi yii la war a interdire waaw pare yi ñuy duggee ci biir géew bi dafa ñu xoolaat ci biir géew ñu xool ci biir géew bi Ada Fass dafa bëgg a wër mais Coly Faye 2 daa bañ Coly Faye 2 nanguwul Ada Fass a ngi wax leket si bopp na jaya ngi wax ak qualifié de Adam Ndiaye un dugg na ndeysaan l'arbitre Babacar Diop mu ngi ñëw di wax ak na ah ak a discipliné musul yàq làmb même muy bëre du yàq làmb Khadim Ndiaye un ndeysaan Khadim na Gueye lan la Khaly Faye de war a bëreel Adim Ndiaye mu ngi dellu ci biir géew bi Adim mu ngi dellu ci biir géew bi xanaa pour xan lay waxal Ndiaye dugal na ci biir géew am na ay yu mu bëgg sànni Khadim ak Coly am na lu mu koy am naa mu ngi koy nekk Coly Faye combat bi bul yàqam ni sa combat Coly Faye déglul sa adversaire lu muy andi Coly Faye Ada Fass moo la gën a nekk xale Coly Coly Faye bul jéem a corriger ki nga xam ne mooy Ada Fass ah Khadim Ndiaye Khadim Ndiaye génnewaat nañ ko Thiam Sène Sèye génnewaat na ko mais mu génn Khadim Ndiaye génn ndeysaan traité mbër bi la dañ koy comprendre rakam jarbaatam doomam mooy bëre ndeysaan Khadim Ndiaye le boucher du dimanche génn na ba léegi ñoo ngi ci biir géew bi. ñoo ngi ci biir géew bi ba léegi am naa dans quelques minutes rek le grand combat entre Ada Fass ak Coly Faye 2 arbitre bi siffle ko fekk ñu dégagé air de jeu bi dégagé enceinte bi parrain yi génn ak ñi mu àndal ñu jox la rendez-vous ci kanam ci diggante Ada Faye 2 Ada ak Coly Faye